bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yi guddi tey gi mooy guddi ñaar fukkeel ak juróom-ñaar ci koor gi naafila tey gi fukki rakka ak ñaar la fukki rakka ak fukki rakka ñaar muy juróom benn sëlmal rakka bu ne benn yoon inna ansalnaahu fukki yoon fukki rakka ak ñaar rakka bu ne fatiha benn yoon inna anzalnaahu fukki yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.